waaye sëñ Jibi Lo mi nga xam ne mooy sama théorie ci liggéey bi mooy sëñ Jibi Lo mi nga xam ne moom la sëñ bi boole ma nekk actionnaire di relation avec l'administration et les sociétés de défense bon ñun suñu liggéey mooy fexe ba diggante force de sécurité yi ak kilifa diine yi ak ñi nga xam ne moom seen liggéey dara ba ñu xamante loolu lañ tàmbali ñu ci diggante institution bi rek léeg-léeg coordination bi dañoo politique de l'organisation léeg-léeg yenn secteur yi ñu war a ci bàyyi ñooñu tam ñu ngi ko liggéey bu am bu ñu ne ci comité ñu ne mooy comité de la ak ne moo nekk commandant conseil commandant conseil de l'état euh, bi ñu wër yëpp ak police yaakaar yoo xam ne seen i taalibe dañu indi ay addiya ak ay siyaar mel na ay nagal yooyu di leen ko jox moom bu ñu leen téye diggante boobu ñooy dox relation bi waaye loolu tam vraiment si ñu ci def liggéey bam di di di remercier directeur jour ak ki nga xam ne mooy Seexu euh, Jóob mi nga xam ne mooy moo mooy mooy mooy mooy moo jiitee mooy mooy gox moom la ñu wax moo jiitee kilifa yi nga xam ne ñooy ñëw suñu mu mel ni liggéey bu toll nii euh, li nga xam ne mooy ba ak relation boo xamante ne dafa taxal ci diggante service bi nga xamante ne administration ak ñi nga xamante ne mooy liggéey bi ndax amul benn jafe-jafe. non ñoo amul parce que euh, si préfet bi préfet police commerciale ba dañ ko tànn nag dañ leen wooye danañu jël dañ leen wooye ñu jël bu ñu comité bu ñu comité bi sollicité sollicité ci wàll gi ñu yor buñ ci man rek ñu ñu jot leen dana yomb parce que téléphone la ñuy waxal ndax dëkk bi ren bi bi mooy day xat ndax li ñuy xate mooy nawet bi ñu nekk mooy contexte bi ñu nekk muy nawet benn yu mag yi nga xam ne yëpp day day taa day taa oto mën a jaar yenn tëli bi am na ci yoo xam maa ngi tay taa ndox mi taa du dañ feeg màggal loolu day xatal dëkk loolu mooy tax il faut ñu ñu waxaat force de sécurité de muy police ak gendarmerie comité d' organisation bi nga xam ne ñooy ñoo yor ñoo yor yombale leen seen accès am nañ ay bats am nañ seen laisser passer bopp démb la dégg nga waaw ak ñi nga xam ne mooy jumaa ji daay dafa xatimaat pour mu i bats am nañ i laisser passer ñoom it ndax ku ne kon ñoom war nañ leen yombalal tikki ak comité d'organisation bi nga xam ne chaque jour ñooy ganale gan yi gani sëriñ ak ñi xam ne ñoom ñoom la ñuy dalal ci kër yi diggante jumaa ji di sëñ Touba Daaru Manaan di sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk di di ko dégg la bii dans yi def def ci kër yooyu yëpp organisation muy képp koo xam bokk na ci nag day yor match da nga xam ne am na lu mu mel nii seen liggéey rataxal la waaye a ngi jàppale ñu ak yombal lañ leen mën a la intervention. ñun pour amul xam ci ndigalul sëñ am sa monsieur Diop laaj. waaw ci ndigalul sëñ dañ koy bàyyee ak police. dégg nga laa daana ñu leen ciy jàppale mais dañ koy bàyyee diggante police li ñu def rek mooy saytu kaaraange mu ñuy def ay ñaawteef di ñëw dëkk bi ak li ñi nga xam ne déngale koom day doon xalu flagrant bi wala koo xam ne déngale koom dafa sàcc alalu jàmm wala mu jël daal alalu jàmm ci loo xam ne dafa taxaw dinañ ko téye moom jébal ko police wala ay cas nag mais yi ñuy cas yëpp ñu koy jébal euh, nekk ak gendarmerie ak ñi nga xam ne ñoo ko seen sant muy Baye Fall yi ak nga xam ne ñoo am na ñoo xam ne dañ ci sax di ci def ay. ay bêtises bi def loo xam ne situation de fonction wane ni policier lañ wala ñu wane ni gendarme lañ wala ñu wane ni ci Baye Fall lañ bokk wala ñu wane ni Fouta bu Fatick lañ bokk di def loo xam ne sant bi leen ñooñu tam seen population bi gisee lañ leen teg loxo dégg nga ko jébbal ko yoon wala ko sama ñeen ko yoon leen gaay loolu loolu tam ci la ñuy dox ñu bàyyi amul problème ak Baye Fall yi nga xam ne sant waaye loolu mën naa la waar woo ne dégg nga ko ñu dañ cee nekkoon man depuis 2004 maa dégg nga baax li ma ci wàllu sécurité depuis quatre-vingt maa ngi doon maa ngi doon dox ci lu mel léegi nag xam naa lu bëree bëri yoon sëñ Tuubaa dafa yaatu waar wu nekk bi di war xam ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy liggéey sëñ Tuubaa moo bëgg waram dégg dégg xëy si naa de bàyyi xam xam nañ position xam nañ ak njàmbaaram xam nañ bëgg sëñ Tuubaa tey liggéey nag bu naree nangu dëgg-dëgg liggéey booy liggéey sëñ Tuubaa tam moom sie dafaan loolu moom neex na moom fi Baay Faal laa seete ñoom laa na liggéey sëñ Tuubaa waaye nag ci liggéey bi sëñ am na ñoom laa moo sama tur xam ne moom moo ma ciy digal li may def moom itam Baye Fall yi tëdd bu daaw xam ne Baye Fall yi ñoo koy commandé ndax sëñ Ibrahima Fall moom sëñ Ibrahima Fall mooy sama patron waaye leneen lu nekk ci wàllu sëñ maa ko yor loolu nag ñu ngi ciy dox baax ci liggéey bi baax day daal nekk loolu mooy sensibiliser population bi rek ñu bàyyi war may ñu bàyyi xel war may dëkk sëñ Mountakha lu ko ñor la te it nee na nag la ci taalibe yëpp jàpp te ci xale yi la ci gën a am yaakaar kon ñun xale yëpp na xal maa ngi xalal loxo xale yëpp ñu fexe ba ñun xale yi ñu lëkkaloo fexe ñu lépp ñu am te ñëpp jàppale ñooy xale yi mais jàppale police ak gendarmerie ndax bu renseignement amul liñ bëgg duñu ko am loolu nag li ñuy wax prévention am ba ñu ko ñu doog koy wax fexe ba mbir ma bañ a am mooy li nga xam ne ko ci kilifa yi ba xam lépp li nga xam ne moom moo a am bañ a jël matuwaay a jël waaye daal sëriñ bi moom bëggul rey bëggul gaañ ah bëggul dóor jëndal ko bëgg na tamit ànd ak force yi ñu ngi seen sëñ am sa sànni ñu ngi ci seen liggéey waaw waaye nag di leeral nit ñi ne ñoom ci gannaaw sëñ am sa sëñ laaj lañ nekk te sëñ am sa bu nga xam ne lii rôle de général bi mooy euh, ci liggéey bi waaye nag euh, dana am ay changement yu bëri jàpp na xam ne suñu wàllu liggéey rek da ngay bàyyi ñu leen di gërëm di leen sant yow yaa dañu nañ bañ a réeroo ak police ak gendarmerie parce que dafa am ay euh, boo tàmbalee ci di ñëw Touba secteur u gendarmerie gendarmerie dafay taxaw kon bu la gendarmerie day jaaral am ni boo fa jaaree mooy gën ci yow bu la police day jaaral fii boo fa jaaree fa nga bëgg nag ma def day li nga xam ne mooy ndigal yi respecté li nga xam ne moom lañ di gërëm di ñëw ci waaye di ñaanal ñaar ñi nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Mountakha ak xalifa général des Baye Fall yàlla wéral leen te yàgg leen parce que njëriñu askan bi ñaan tamit suñu jëwriñ seen am seen yàgg si ak njaboot seen tubaab yi asalaamaaleykum wa rahmatulah